Germain Coly maa ngi lay nuyu euh, may fàttali rek ne yaay euh, directeur au cinématographie maa ngi lay jaajëfal bu baax di la dalal. maa ngi lay nuyu soxna Awa di nuyu auditeur euh, réew mi. alors ci occasion bi ñuy màggal lekk bés bi ñu jagleel patrimoine audiovisuel tey jii mën ngaa dellusi rek ci importance su bés bile. waaw bés bi am na solo trop xam nga sooy tabax sooy tabax réew jaar na doomi réew mi ñu xam réew mi fan la jógee. ak pour ñu mën a xam fu ñu jëm euh, soo ko amul dina am jafe-jafe parce que dina am lu bëri lu la manqué archive euh, dafa nekk loo xam ne euh, lu am important ci évolution réew loolu mooy tax ni ñi am liggéey bi ñu fi def xam aussi ni ñi bañ a yaakaar ni àdduna surtout xale yi ñu bañ a yaakaar ni àdduna si ñoom la commencé mais am na ñu fi nekkoon def liggéey bu rëy donc euh, wax dëgg dëgg donc euh, moo tax ñun état du Sénégal bi nga xam ne confié na responsabilité boobu ministère de la culture ministre de la culture confié ko direction de la cinématographie ñu ngi def ay jéego déjà que euh, dem nañu jëli archive yi nga xam ne yooyu moo nekkoon archive des actualités sénégalaises ñu recensé foofu ay ay nombre yu amaana donc loolu yëpp indi nañ ko mu ngi direction de la cinématographie au niveau du bureau des archives donc ñu ngi ciy liggéey tous les jours am nañu ay partenaires ñu ñuy dimbale notamment ay italiens ñu dimbale mais am nañu bitim réew aussi euh, cinémathèque comme bu Bologne ci ñuy dimbale tamit ci numérisation numérisation xaw ma nu ma koy tekkee mooy vraiment mm-hmm. jël xarale yu yi yóbbu mm-hmm. voilà yóbbu ko ci xarala yu bees yi mm-hmm. fixé ko foofu pour que mu ñu mun koo diffuser tamit mais ñu mun ko conserver mais ñu mun koo yóbbu ci diffuser pour que ñëpp mun ko mun mun mun koo donc xar euh, archive yooyu mu ngi ci suñu direction de la cinématographie hmm. samay collaborateur ñu ngi ciy liggéey bés bu nekk vraiment pour numériser loolu yëpp mais également pour que nit mun cee jot foo am soxlaa nga mun cee jot euh, soo nekkee da nga bëgg a tourner film nga mun cee jot mais su fekkee chercheur la tamit wala étudiant la boo xam ne Euh, soxla na ko mu mun cee jot mm. su su bindee lettre rek bind ko ministère de la culture dinañ ko autoriser pour que mu mun cee jot. très bien mais est-ce que waruñoo xoolaat yi tamit li nga xamante ne euh, mooy qualité film yi. waaw man yaakaar naa ni euh, si réew qualité film dañoo war a produire ay film yu bëri. Mm-hmm. léegi nag suñ produire film yu bëree bëree bëri si boobu si loo boobu ci mën a ràññee ay film yoo xam ne. am nañu vraiment dépassé wu nañu si si si loo bi réew yëpp noonu la ñuy fonctionner réew cinéma noonu la ñuy fonctionner soo jëlee réew mel ni Maroc noonu la dañuy da ngay dem ñu produire lu bëri bëri bëri maintenant ci loolu nañu ràññee parce que aussi euh, talent bi yemul tamul talent bi yemul entre créateur kii lu mu mën a def keneen peut-être euh, du ko mën a def mais je pense qu'il faut donner la chance war na ñoo may chance euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu réalisateur ñoom ñooy suñu producteur pour que ñu mën a produire quantité bu am important et quantité boobu dinañu ràññee film yoo xam ne euh, am nañu solo am nañu maanaam e c'est ce qui arrive moo tax soo xoolee léegi dans toutes les rencontres internationales lépp li am ci ci bitim réew di gis ni film sénégalais yaa ngi foofu film film film sénégalais yaa ngi am ay raaya foofu te loolu voilà du du du neen je pense que mooy liggéey bi ñu bi ñu bi ñu nekk di def nii mais Sénégal aussi pour que ñu mën a améliorer continuer di améliorer qualité film yooyu mm-hmm. état du Sénégal mu ngi gunge initiative de formation yi nga xam ne am na fii Sénégal su ma jëlee lu mel ni Cinecap ñu ngi def formation euh, ak bu ñu tuddee ëpp court métrage formation boobu état du Sénégal mu ngi koy gunge soo jëlee centre Yenenga mm, mu ngi def ay formation si mm. post production maanaam euh, naka la ñuy defaree film jagal ko ba mu ba rafet après tournage bi mm-hmm. donc ñoom si loolu la ñuy spécialisé wu ñooñu tamit état du Sénégal mu ngi leen di di di ràññee am na yeneen formation yoo xam ne dañ koy jëlee fii Ndakaaru wër si région yi di jël ay xale di di am na luy am Goudomp par exemple par Ibarat TV ñuy former ay jeunes et tout ça ñooñu tamit état du Sénégal mu ngi leen di accompagner via le Euh, université yi tamit comme UGB mu ngi def euh, son master en réalisation documentaire boobu tamit état du Sénégal mu ngi koy gunge donc état bi comprendre na ni que pour que cinéma bi sénégalais pour mu gën a jëm kanam pour que qualité film yi ñu mun koo seetlu si si production yi il faut que nit ñi ñu former leen formation bu baax. Mm-hmm. tey soo seetloo film yi ñu tourné fii même film film yoo xam ne bitim réew la nit ñi di jóge ñëw choisir Sénégal parce que. Sénégal am na ay loi yu baax pour defar film parce que Sénégal am na ay décor mais c'est surtout parce que Sénégal aussi am na ay ressources humaines donc xale yi nekk fii ñu ngi liggéey ci film yooyu mais nekkul suñ si liggéey bu ñuy bi ñuy def noonu nekkul ni c'est un travail périphérique mais ñoom ñooy yore chef de poste ñu ngi nekk chef de poste di mun na nekk directeur de la photographie mun na nekk leneen mais chef de poste lay nekk lay lay occupé foofu si tournage yooyu et loolu yaakaar naa ni c'est pas rien c'est parce que état bi mu ngi bunge formation bi ñu ngi former nit ñi fii accompagner initiative bi mais mu ngi yóbbu tamit am na ay étudiants yu nekk staff bu Marrakech staff bu mu nekk école bu mag buy def affaire cinéma mu ngi Maroc wala euh, état du Sénégal mu ngi soutenir financièrement ay étudiants tey am nañu douze étudiants yoo xam ne ñu ngi foofu te ñooñu yëpp état du Sénégal moo leen fa moo moo moo leen fa yónni moo leen di jàppale pour que ñu mën a def film yooyu quelqu'un soo jëlee nit ku mel ni euh, comment s'appelle Mamadou Dia mi nga xam ne état du Sénégal moo ko yóbbu mu dem def euh, étude am euh, fële aux États-Unis mm. donc kooku moo pro moo réalisé film Baamun Nafi film bi nga xam ne vraiment daaw été présélectionné aux Oscars aux Oscars donc Baamun Nafi mu nekk voilà film bu mag bu mag la aussi boo xam ne gis nañ ko fii donc c'est des jeunes comme ça bu nga xam ne état du Sénégal moo leen di accompagner moo leen di financer seen seen bi pour que de façon globale secteur cinéma Sénégal mun a mun a développé alors bëri na ay film yoo xamante ne daanaka am na solo surtout lu ci mel ni Sira bu Souleymane Kébé waaye tamit yeneen ak yeneen mais dañuy gis ne à chaque fois ngir film yooyu ñu diffuser ko ci euh, télévision sénégalaise yi day doon lu jafe-jafe tey jii pour yow loolu lan moo ko waral. waaw man ma yaakaar ne question boobu dañ ko war a yi. Mm-hmm. Euh, cinéma wax dëgg dëgg dëgg art la mais cinéma aussi euh, économie cinéma business la euh, je pense que télévision yooyu ñoo war a produire ñoo war a prévoir moyen parce que da ngay jënd ay droits de diffusion loolu da ngay wax ak producteurs yi Souleymane Kébé mi nga wax ni ma koy nuyoo mu nekk euh, xale boo xam ne ràññee nañ ko. fonk euh, véritablement au niveau de la production mu nekk garçon talentueux. Mm-hmm. moom moo moom moo ñu indi projet Sira bi au mm-hmm. niveau du Popita. Mm-hmm. en avec euh, d'autres d'autres d'autres partenaires léegi Sénégal nangu accompagner. Euh, Sénégal joué na ci rôle bu am maana film boobu sa tey lay génnee Dakar en première mais def nañ ci euh, Sénégal jàpp na ci dëggantaan ba film boobu bi nga xam ne réalisatrice bi burkinabé la film bi boobu mu mun a am may nuyoo Souleymane euh, Souleymane Kébé mais voilà euh, comme nee naa affaire de business la donc euh, télévision yi ñoom ñoo war a ñoo war a góorgóorlu tamit mun a jël production parce que production bi moom am na hmm. mais yaakaaruma ni faiblesse production bi wala qualité production bi parce que film yooyu mu ngi jàll feneen muy am ay raaya muy jàll si yeneen télévision bitim réew donc euh, voilà donc yaakaar naa ni problème bi leneen la mais mun nga koo laaj euh, directeur télévision yi fii Sénégal euh, ñoom dinañ la mais gisoo ne maanaam ci wàllum qualité bi peut-être loolu mën na bokk ci di tax. duñ ko diffusé boobu moom boobu moom munu munuñ koo évoqué munuñoo évoqué qualité bi mais su suñu évoqué qualité bi waxuma leen ñu génnee film yi yëpp. mais mm. am na ay film yoo xam ne. Euh, ràññee nañ leen te génnul foofu donc du problème qualité. Mm-hmm. am na ay film yo yoo xam ne génn génn génnul télévision alors que yeneen télévision yi ñu ngi ko ñu ngi xëccoo pour génne leen. Mm-hmm. donc du qualité bi foofu moom ma ci ànd. alors ci wàllum patrimoine bi tamit euh, gis nañ ne euh, lu ci mel ni ay patrimoine waa euh, Ousmane Sembène bu njëkkaan ngir mën a jot ci archive bi en tout cas ku ci mel ni cinéaste bi di Moussa Sène Absa ne dañ ko ko mujjee laaj est-ce que loolu tamit taxul tey peut-être numérisation bi nga xamante ne wax nga ko mën na nekk solution ngir rek ñu mën a di denc yenn archive yi. waaw man patrimoine Sembène li ci mën a wax. héritier yi héritier semmen ñi nga xam ne ay doomam lañu mm-hmm. parce que ñoom ñooy les ayants droit ñoom ñoo yore ñoom ñoo jël héritage fin bi mm-hmm. ñun xam nañ leen euh, ñu ngi wax ak ñoom ñu ngi def yenn activité ensemble mm-hmm. euh, donc xaw ma ban état moo dem laaj euh, archive Sembène si réalisateur bo bi ngay wax mais ñun xam nañu héritier yi xam nañu euh, patrimoine Sembène bi moo ni mu ngi université dans une université aux États-Unis loolu xam nañ ko ni ce sont ses héritiers ñoom ñoo confié euh, ce, ce patrimoine la a une université en Indiana mm -hmm. mais ces, ces archives sont euh, maa ngi làkk français mais archives yooyu ni mm-hmm. ñi mën nañ cee jot mën nañ cee jot mm-hmm. donc ñu ngi def liggéey bu am solo ak ñoom de voilà yaakaar naa ni Euh, problème ne se pas à ce niveau-là. très bien alors euh, ci wàllum tamit FOPICA muy fond bi nga xamante ne jagleel nañ ko wàllum cinéma est que mën nañ xaar tamit ñu yokk ko ngir gën a mën a taxaw yi tamit euh, cinéaste yi. waaw di di di ci loolu may gërëm président de la république son excellence monsieur Macky ci liggéey boo xam ne mun naa ko ñëpp ràññee nañ ko. ci mbirum cinéma mu nekk un secteur boo xam ne secteur culture même le président Macky Sall am na sensibilité bu rëy ci secteur de la culture euh, soo seetloo dans le domaine de la culture créé na un certain nombre de fonds yi nga xam ne c'est pour permettre à la culture de se développer soo demee ci édition bi am na le fonds à l'édition so il y a le fonds de développement des cultures urbaines euh, il y a le fonds d'aide aux artistes et au développement de la culture mais soo a OPICA moom moo ko moo ko doté pour la première fois moo ci dugal xaalis état pour que développement secteur cinéma mun a mun a am commencé na par dugal ci huit cent millions yóbbu na ko un milliard mm-hmm. léegi yóbbu na ko deux milliards mais gis nañu résultat bi gis ñu résultat bi parce que à partir du moment où am na mécanisme de financement du secteur du cinéma da ngay ràññee ni euh, production baa ngi yokk da ngay yaa ràññee ni euh, formation xale yi mu ngi am donc c'est comme ñëpp xam nañ ni cinéma c'est une niche d'emploi énorme donc plus producteur production bi di yokk plus xale yi di am liggéey di am xëy donc euh, ñu ngi ciy liggéey régulièrement à travers le développement de ce secteur-là notamment avec les séries qui se tournent aujourd'hui am nañu xale yi dinañu am xëy mais parce que ñu ngi liggéey tout le long de l'année donc je pense que euh, war nañoo remercier président pour avoir aidé à créer un écosystème favorable vraiment au développement euh, du, du, du, cinéma. Mhm. Euh, mais yaakaar naa ni voilà fond bi dina commencer dina continuer di yokk parce que c'est vrai que deux milliards baax na lool mais deux milliards ci cinéma wala nekkul xaalis bu bëree bëri bëri mais ñu ngi def ay rapport ñu ngi continuer le plaidoyer pour que xaalis bi mun a yokku pour que cinéaste yi mun cee mun a def encore leneen lu rëy mun cee développer secteur bi structuration secteur bi yooyu yëpp ak production bi ak diffusion bi parce que cinéma toute la chaîne war na fonctionner su doxul su benn doxul euh, voilà dinañu am euh, quelques problèmes. Mm-hmm. en tout cas Germain Coly ñu ngi lay jaajëfal ci li nga nangoo nekk suñu invité matinal may fàttali rek ne yaay njiitu euh, cinématographie fii ci Sénégal ñoo ngi lay jaajëfal bu baax. jërëjëf yéen maa ngi leen di sant